mbokk internet yi gis ngeen comme ni ñu ko xëyee di def boobu ba léegi ñi ngi wër ci ñi nga xamante ne ñuy daal di am bi saa su nekk comme nañ koy defee at mu nekk rek kuy bëggee euh, Serigne Abdou Lahad fu mu nekk rek akub taalibeem dañ la dem seeti feddaliwaat kóllëre yi nga xamante ne nii amoon na ko ak yow tey nag ngi fii ci kër Serigne Dame Cissé moom nag kenn du màggal Serigne Abdou Lahad te sa xel demul ci moom dañ def rek lu dul bàyyi ki nga xamante ni moo di Serigne daam Cissé mu daal di nuyoo mbokk internet yi koy seetaan ñu di ko ziar nag bu baax a baax ci bisu Serigne sëriñ bi man Kaolack laa yaroo daayira gone yu ndaw ya ma nekkoon seen président ànd nañu di siyaare si daayira buy ànd bokk lay yére di siyaare ci Kaolack lay jëkke ñuy dikk Jurbel mu mel dañuy teeru président Senghor dégg nga bi nga xamee ne sëñ Blaat dikk nañu mu ne nii ngeen def di mu di ko wax mag ñi man booba gone la waaye daayira xale yi boobu may seen président waaye waxut ak noonu mag la waxal mu ne leen lii ngeen di def mi ngi mel da ngeen semb sàqum juróom ba mu fees ngeen di ko xaare nawet waaye ngeen dox ca suuf bënn taat wi pep ma jaar fa yundeeku ba set wecc bu nawetee ba ngeen war a dund su ngeen yëkkatee jànk ba du ngeen fa fekk dara daayira ci Kaolack su fekkee am na fa ay xale yu xamul dara lay doon waaye menn mag menn mag mu dëkk Kaolack fekkee defub daayira doo ko dégg réew mi fu mu fi nekk du dugg cib daayira du wax ko daayira ba ci man mii toog kenn mësuma dégg ci daayira sama yoon nekkul cib daayira ndax Sëriñ Tuubaa Cheikh Abdoul Ahad moo ne murit laa képp ku ci yem na jàpp ne perte nga ndax murit du ay wax murit jëf la murit jëf la murit du ay wax. kon loolu moo la booleeg ñi nga xamante ni moom lañuy ñuy woowee muuma yi. waaw muy muuma yooyu nag ma daal ne àdduna ma ne su fee nekk te doo def dara ma daal di seet muuma yii bi ma ñibbisee tuubaa gii ma daal di seet muuma yi formé leen ci gaar bu ndaw fee gaar bu ndaw fa laa formé. dégg nga sama kër mag foofu la nekkoon muuma yi di dox ma formé ma mu euh, daayira muuma bu góor formé daayira muuma bu jigéen jigéen ñi ñoo njëkk a jàng bu jigéen ñi génnee góor ñi dugg Fallou Ndiaye jàngkat yëpp am na ci ba léegi si xaarim ngay mii sax ñu ngi koy roy am naa boobu jàngkat mi ngi fi xam naa ne dana ñëw daa ñëwagul waaye dana ñëw muuma yëpp bu soobee yàlla ci kanam tuuti bu ngeen ñëwee defe naa da ngeen fi fekk mooma yu baree baree bare fu mu mën ne rek da ngeen ko gis fii ci kër gi tey jii bu soobee yàlla. Baye Dame am na solo ñun tamit euh, tey jii ñu gis ne ci la ñuy màggal jàmbaari Seexul Xadim jooju amuk taalibe loolu muy seex Abdoul Ahad Mbacké lan nga nu mën a wax ci moom. sëñ Tuubaa Cheikh Abdoul Ahad baat yi ma wax moo di aw dàllam dàllu sëriñ Tuubaa la sol du ko teg fenn fu dul fakk sëñ Tuubaa daan teg kooku it leer na ma nañ ah? Euh, jamonoy sëñ nekk na koo xam ne doxinu sëñ lay dox bëgg murit yëpp yërëm murit yëpp di ku xam ak ku xamut ñëpp nag laa wax boo ko xamee boo ko xamut jëfal na la ñiy waaj a judd nii te juddooguñu sëñ Abdou Lahad jëfal na leen ndax ñooñu ñu juddoo buñ dikkee ñi ñi sëñ ba di jëfaloon lañ fiy fekk kon doxinu ñi fi fekk dong la ñuy doxee kon sëñ Abdou Lahad jëfal nañ ñëpp ku juddu ak ku juddu. ñu xam tamit sëñ Abdoulaye nan la daan yare ah foofu mooy li ma wax léegi domaine boobu man duma ci sori li ma xam te mu wóor ma ne kii mën naa ko waat ci alxuraan foofa rek laa ci mën a yem man muy foofu la ca des nag sa mbirum bopp la li ma defal nag mën naa cee wax lu leer mën naa cee defali nit ku ma seet si ku ne nag waaw lu ma jox nit ci àdduna du ko am fenn fudul fii ci kër Sëñ Abdoulaye sëriñ Abdoulaye lan la la defal. loolu bari na lool njëkk bi lu lu àdduna yëpp wër Dakar gii ma nga ma ko macce beral ma for ko ñëw ji ko dugal ko fii sama poos ñëw ji fii ci kër gi borne ba mu tegoon tànkam di waxtaan ak man juróom-ñaari kër yi moo ma ko jox juróom-ñaari kër yi moo ma ko jox ba nu ma dëkkal ci gii nu nekk hmm? kër yi fanweeri mètre la fii ba jumaa ji amu fi benn ruq bii la juróom-ñaari kër yi moo ma ko joxal boppam ba ne ma dëkkal ci gii bi mu dëkkee ci gii Dakar ba mu doon ma ca ma ñëw ji ko fii Dakar gaa ngi nii di meññ noor nawet bu ngeen génnee Dakar gi da ngeen ko teg bët ku dikk fii gis Dakar gi Dakar gi itam góor gu man góor gu man gu ne fu la fekk yokk la te du leen tàggoo am naa it leneen góor gu tële bu dikkee fii ah yor naa loo xam ne ku tëlee dana man lam bëgg kooku yor naa ko déggoo li ma wax nii mhm. lu bari lu bari da ngay toog mhm. kay bu la neexee mhm. toogal sama kër ma won la loolu kay fi laa mën a yem sëñ Abdoulaye ma ko defal moom ma ci daqaar gi yàbbi ko ma ji ko mi ngi nii ne fang adduna yëpp bu ñu koy gis ko adduna yëpp it xaj na ci waaw mi ngi nii bala ngeen a dem dinaa defar daqaar ji ngeen kenn ku ne ñam ko du ko nekk li moroomam fii bala ngeen a génn léegi kooku dinaa leen ko defal. gis nañ tamit Baye Dame euh, sëñ Abdoulaye Massana wax rek ñëpp koy bàyyi xel lan moo ko mayoon loolu. déggoo li ma wax de sëñ Abdoulaye nee na itteem ba mu rawee gaañi yàgg na ba muy gane àdduna ca njaareem sëñ euh, sëñ tiim ko ne am na ci moom yaakaar te yàlla du tas mukk yaakaar yi sëñ Tuubaa boobu la raw gaañ yëpp dëgg la lépp nag sëñ Tuubaa ko def. waaye nag ba ko moom tiimee ah ne am na ci moom yaakaar boobal la raw gaa yëpp ndax lu toll ni sëñ Tuubaa comme yaakaar kooku raw nga adduna raw nga àllaaxira wax nag neexul ak dégg am njariñ sëy blaat raw na adduna raw na àllaaxira kenn dootu doon moom raw na ñëpp nee naa la ñi juddoogut fa ku ci déglu ñim ñim fi fekk ñooña da raw say moroom ndax sëñ Blaat nee naa la dimbale ñi dund dimbale ñiy dee dimbale ñiy juddoogu barki sëñ Bamba kooku mën naa koo waat ci xam ak ku xamutu ci yam billaahi wallaahi man fii ne bu ma ci soree damay daal di dem fu ma dem baa ma wax lu ma wax te ko foofu moom nañ fi yem rek dimbale ma loolu. jaaxle gu fi waaye indi kon mën nañoo jàpp ne dina faju lu fi waaye indi ci jaaxle àdduna barke Ahmadou Bamba sëñ Tuubaa fajal la ko sëñ Abdou Lahad fajal la ko man xoolal kër gi du fi dara ab gardien rek laa fi du ma fi dara sëñ Abdou Lahad képp laa fi ci moom laa tàmbalee ci moom laay yem gisuma leneen lu moom alxuraan boo koy jàng mën naa giñ sëriñ Bamba ne dégg duggut sama bopp bii sëñ Abdou Lahad képp dugg ci yóor gi gisuma keneen ku dugg ci yóor gi ku dul sëñ Abdou ndax yow muy jàng alxuraan xaw ma noo demee lakk arab yi ngi may làkk dégguma ko sëñ Abdou Lahad nag man koo dégg muy wax ak man ma jàkkaarloog moom kon kooku rek laa déglu gisuma keneen ku mën a dugg ci yàlla nag moom moo moo ma ko binde ba ñu ma nag dee ci dee ci seen ñu jël sama bakkan bi rey ma ci seen ba ñu ma ko euh, Baye Dame duñ jeexal te laajuñu la ren nan ngeen màggalee màggal gi ak mbas mi nga xamante ni dugg na si réew mi Serigne Sidi daal di joxe ndigal ngir ñu soppi nañ ko daan màggalee naka ngeen ko màggalee ren. waaw sëñ Sidi moom joxe na ndigal li xam naa it man wóor na ma ne ba mbas mi amee booba kasarayam ñëwagut cañ ko tàmbali damaa daal di wàcc sëñ Tuubaa ne mbas mi de balaa balaa wata yi ñu téye nii balaa dawati màggalu si iblaat lay ubbeeku kooku mën naa ko waat moom feeg màggalu si iblaat dikkut xanaa day yokk waaye du wàññi moom mm-hmm. bu màggalu si iblaat egsee nag buy agsi rek ba mm-hmm. bunt yi ubbeeku mm-hmm. waaw ndax jëmmi sëñ iblaat ñëpp da ko war a xam te na ma yàlla jégal bari na ñooñ dañ ko xamut ñëpp war koo jox njukkal ñëpp war ko ndokkeel ñëpp war a xam ne moom moom adduna moom moom àllaaxira te te teguñu ko fa loolu dong nu dal waaye dara dal nu ludul gannaawal guñ gannaaw suy blaat képp waaye buñ ko toppatoo woon maa ngi waat sëñ Tuubaa ne dara duñ jot waaw mën naa wat ci yàlla ne su fekkoon tey mi ngi woon ci kaw suuf ka bëgg xalaat demal Tuubaa nangam rek foofe ngay faatoo barki sëriñ Tuubaa kooku moom adduna moom moom man niñ ko màggale ginnaaw sëñ Sidi joxe na ndigal tay murit lanu te ginnaaw mooy suñ kilifa kilifa bu waxee waaw waaw rek moo ci war a topp hmm? man de dama ub sama kër dama ub sama kër gëléem la rey tey gëléem gi ma wër di ko yóbbu di jëlub taxi wër di ko saraxe nit ñi moo taxoon ngeen fekku leen ma fii bi ngeen fi ñëwee ma doon sarse ay ndab oto bi may ngi taxaw ngi nii may sarse ndab di yóbbu ji fu ne bëgg gëléem ji nit ñi lekk ko ba mu jeex tàkk loolu de ci ngeen ma fekk man noonu de laa màggale man waaw Baye Dame ñu ngi lay jaay jëfal di la bàyyi rek nga daal di tàggatoo waaw tàggatoo bi moom maa ngi sant yàlla ak yonent bi ak jëmmi Cheikh Abdoulaye Mbacke man sama biir ak sama bitti siblaata ko yor moo añal moo may reeral ci lay xëy ci lay gont diirub fanweeri at fanweeri at yii kenn ku ma xam ku ne du ne mukk ci àdduna fii la daam di xëy fii lay gont defe naa kii leen fi indi xam naa mën naa ne ci kaw fii ci kër gi la màgge waaye mënut a wax ne fii la daan xëy ba fii lay gont maa ngi tedd sëñ Blaate nga may teral di ma di ma joxit nga may terle waaw loolu daal moom mën naa ko ci wax moom maa ngi jéggalu nag ngeen baal ma àq jërë ngeen jëf